Allah. yoo xam ni danañ jëfee ay digalam waaye di moytu ay tereem loolu ñu li day sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaan jàmm moom ak sahabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi yàlla sunu taxawaayu xutba tey mi ngi jëm ci assujuud al aaqifi dong boo xam ni jamono ci la ñëw yàggoon naa ñëw sax waaye dafa di tomb bu sensible muy jikko du yàqu su la neexee nga tuddee ko ni la mu la war a doon bañ ko nit ci leneen loolu mooy yàqu mooy ki yàlla de mu nekk góor te ngóoreem neexu ko mu mel ni bu mu doon jigéen ba yóbbu ko ci jëfu jigéen wala ki yàlla bind mu doon jigéen ak jigéen neexu ko mu dem ba jàpp moom la mu mu doon góor mu taamu far di def jëfi góor siriti bu gàtt mën ko léegi daal mooy ak góor jigéen xam ngeen ni jamono yi siiw na lool donte nag am nañu ay bàjjen am nañu ay kilifa yu leen taxawul te dara sababu ko dul yàq àdduna kon jullit bi li jiitu li ñu koy dénk ci balaa yoo dugg ci si démb noo ngi koy dund léegi ci jamono yi daan ko dégg ca Europe daan ko dégg ca Asie wala di ko dégg sax ca Amérique tey mu ñëw Afrique ba léegi. di daje góor bu adressé boppam jigéen daje da ngay dox ba ñu ko gis koo xam ni góor jigéen la nëbbu ko rusut ko waaye ragal dem ba àgg fi nga xam ni bàyyi ma nañ fa àgg bàyyi ma nañ àgg ci melokaan boobu dem na ba jikko yàqu na jëf yi yàqu na tey bëgg góor nga foog ni bëggu xarit la wala soppu àndaale nekk bëgg bi mu war a bëgg jigéen day bëgg góor ni moom ka daanaka jigéen day bëgg jigéen nga foog ni bëggu cofeel la ak ànd ndeke bëgg gi mu waroon a bëgg góor dox ba gis xarit bu góor di sëy ak xarit bu góor di moom loolu mosoo ko gis ci sa bët doo dox ba seen golo bu góor di sëy góor di moom déedéet ñoom rus nañ ko ndax jox nañu yàlla cër rus nañu ko ndax jox nañu nakiir bi cër rus nañu ko waaye jox nañu seen bopp cër ba bañ a suufee kono mi mbaama déedéet doo gis donc bu seen mbaam di sëy ak morom o mbaam bu góor wala mbaam bu jigéen di sëy mbaam bu jigéen doo ko dégg waaye tey àgg nañ ci nit suufee ba gën a suufee mbaam nag koo doon jigéen o góoram àgg nañ foofu tey tubaab yi ñoo homosexuel ñun ci suñuy aada ñu koy wax góor jigéen maanaam góor bu xeeb ngóor a gam doonoon def boppam jigéen ci ay geste ci ay wax bal àddina ci ay jëf dégg nañ ci àdduna bi dëkk yu bëri ci woon yu validé ni léegi dalee na góor sëy ak góor mun defe naa yéen

mbokk yi suñu àggee foofu ñu yëg ni daanaka mbir maa ngi doon jeex tey ni gën a devenir ay responsable société ay responsable rom société te ay quotidien la tey da ngay gis ay ministre yu mag te ay quotidien la léegi ci àdduna bi fépp la tas dafa mel ni léegi

Sénégal yu bëri boo waxee ñu ne dëkku diine la Sénégal dëkku diine la lan moo tax ñu ne dëkku diine la quatre-vingt-quinze pour cent yooyu jullit ñii ne Sénégal dëkku diine la lan moo tax parce que mag ñu baax ñi fi jaar samp fi diine te gis mag ñooñu nga xam ni diine jaraloon ñii diine jaral leen ñu jihaad ñii diine jaral leen ñu exilé leen génn leen ñii diine jaral leen ñu topp àdduna ñu wër ko ci sunuy mag ñu am ci ay misaal yu mag li ma junj doy na am nañ fi ay mag yoo xamante ne ñoom la ñuy bàkkoo ci diine ñooñu ku leen yeewoon tey leen Sénégal am na góor jigéen dañuy xam wallahi tey bu yeewoon Alaaji Maalik nekk Sénégal am na lu jigéen nga yee Sëriñ Tuubaa wala nga yee woon Fuuti ne ko Sénégal léegi am na nguur jigéen non mënuñ la gëm tey ñun nga xam ne ñu ay nit ñoo ne ñooy jóg foo dox ci mbedd Ndakaar yi gis courtier boo dee taximan néew na nga dawal lu nga yëpp courtier fan la dëkk Sénégal ci réew mi la bokk fii lay bàkkoo doon góor jigéen àgg nag ci ñeneen léegi am jëkkër àgg ci ñeneen takk sëy mbokk yi lii mooy ashurur al aadafi jikko ju wëndu la nga waroon doon nga xeeb tey àgg nañ ci ay jigéen ñoo xam ni ñeme nañu jël micro di wax ci rajo ne ñoom sëy mu ak jigéen ñi ñoom lañu seet waaw ah, loolu loolu kenn da ma ko déglu ci seen yi ralee fii benn jigéen ne man man góor neexuma man jigéen ñi seet te loolu xam ngeen ne am na muy lesbienne ñi koy def ay directrices société lañ wala ñu nekk ay journaliste wala ñu nekk ay fonctionnaire lan mooy seen métier lesbienne ñeme leen mbokk yi lesbienne ci xeetu Muhammad la njëkk am sallallahu alayhi wa sallam ci xeetu Muhammad la njëkk am mais xeet yi paase xamuñu ko woon xeet yi paase xamuñu woon jigéen buy sëy ak jigéen ko ak buur ni moom ba ci jamono yi yonent yàlla luut ci la loolu njëkk a amee ci jamono yonent yàlla luut la góor njëkk a fayee ak góor moo tax bi wax ñoom daf ne ne ma sabaqakum biha min ahad lii ngeen di def kenn nit ku leen ko def loolu moo tax jëf ju bon jooju ñu jël ko tuddee ko murdiya du tuddee ko tur bi la mais askanee la dañ ko askanee mbokk yi jikko yi tey suufee mbokk yi tey xale bu góor day am far góor ñi moom xale bu jigéen am far góor ñi moom kañ la ñëw ci suñu réew mooy bi ñu commencé émigré bi ñu ubbee compte immigrant nga xamante ni bu neex ñu génn leen ko adduna bi nekk benn xul visa yomb fu la neex nga dem ñuy dem ci seeni dëkk ñuy ñëw ci suñu dëkk ubbi ay mbott yoo xamante ni wàllu touriste day am touriste yi jóge Europe di ñëw suñuy bos di jóge fii di dem ci la jikko jooju tàmbalee dugg biir Sénégal mais xamuñ ko woon nag dëgg dëgg dëgg xamuñ ko woon démb suñu déggoon ni nit góor jigéen bu ko nit ñi seetee li ñuy njëkk a def xale yi dañ koy topp di ko yuuxoo di ko cëppatoo di sànni xeer ba ñu bëri ragal ña ko daan def dañ ci daan ragal ci jamono yi pass ku ko dooloon yi da koy làq da bàyyi bu guddi nga def da ngay def mais sanoo génn def na neex tey dem na ba góor jigéen ñeme naa défilé de mode ci télé ñu ngay wane ñeme la wax ni man góor jigéen laa ñu koy déglu ci ay rajo ndax am na fii ñeme la wax ni man góor jigéen laa ba pare am liberté effectivement parce que liberté dafa jaar ku nekk am nga droit nga am liberté ku ne am nga droit ci tànn lu ko neex waaye bis dana jot ki bind ñëpp moom ñëpp teeral bon lii dana ko àtte moom su ñu amee kilifa yu leen